ngeen jëf mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar baax a baax seen émission bu mag bi ñuy wax jàmmaarloo jàmmaarloo nag tey dafa génn ñëw ba biir Pikine seet si ki nga xamante ni mooy soq naan soq dugub soq ca dugub ko soq wal ko tey ko du la jaaxal defe naa ne tey ñoo ngi biir Pikine xanaa ma bàyyi ko ma nuyoo ñu weel waxtaan wi soq nuyu naa la. yaaram waaw maa lay fay di wax onze billah bisimilah inna wali la di wax jërëjëf sëriñ Touba jërëjëf Serigne Touba. jërëjëfe Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul may santaat sëriñ Touba bu wér di santaat suma yaay bu baax a baax di santaat suma yaay di ko ñaanal gudd fan ak wér di ñaanal suma soxna Jike juuf yàlla defal ko jàmm yaayu Bamba ak Seydina Mouhamed di ñaanal mboolem doomi aadama di ñaanal suma nijaay Jibi Joola yàlla guddal fanam xam nga yokk taxawaayam ak mën-mënam bu baax ci barki yonent bi di ñaan senegal yàlla na fi jàmm yàgg di ñaanal waa ginnaaw raay gi ma juddoo yaroo fa màggee fa ñëpp am jàmm di ñaanal waa pikin di ñaanal képp kuy doomu pikin yàlla suñu borom defal la jàmm ci barki Seydina Mohamed ak képp kuy doomu aadama ak foo mën a dëkk yàlla defal la tawféex ci doole Serigne Touba. Euh, yàlla na ko yàlla def mais euh, keroog da nga bëgg bu neex boo xamante ni sa diggante ak Gamou Gueye combat boo xamante nii. bokkoon na ci li lay delloo ci làmb bokkoon na ci li nga xamante ni soo ci jugee dina mën a wax soq ak diw wala boog soq yëgg na benn niveau bi mi nga bëri ko ak manière yàlla dogal nga am ci ndam bi ci amee ndam boobu ak léegi soq déggaatuñu ko ñoo ngi dégg nag ay combat ñuy romanaat soq euh, kii mbay guy gi soq keneen ak keneen mais boobu ak léegi fan nga tool non maa ngi si kawam moom mais soq mbay guy gi moom dégguma ko quoi amul benn promoteur sax bu ma sañoo woo naan ma yàgg gi. ah lu tax sax ñu laa woo di sa diggante ak mbay guy. non lu tax ñu may woo di ma wax mbay guy gi man mënuma di bëri di daan champion yi di gestuwaat di bëri ak ñi si ginnaaw parce que tey tey képp koo gis ci àdduna muy dox dafa bëgg li mu nekk mu ci dem di avancer di am ay tànku kanam mais munuma bëri génération bi ma nekk ñëpp bërëg ñëpp bërëg ay Pape Mbaye bërëg ay daan bërëg ay doomu dàngu bërëg ay Laay Pythagore comprendre nga bërëg ay mobile 2 bërëg tey ay Youssou Ndour bu lébu gi bërëg tey ay ndigal bu géejawaay bërëg gàmmu gay barki Demba Ndiaye wëlbatikuwaat di bërëg mbay guy gi loolu du avancement loolu du yokkute sokk sax si làmb te man war naa dépasser niveau boobu niveau boobu noonu man ba ma bëree ci kalaaf bi am ci benn victoire ñaari defet dama replier waat bëreeg Nandi Fall bëreeg Gamou Gueye kon li tax ma replier waat bërewaat ak ñoom c'est parce que fi ma jugee moo tax ma replier waat bërewaat ak ñoom bërewaat ak ñoom defaat ay confirmation kon jot na ma bëreeg gars yi mais pas ay mbay guy gi mbay guy gi bu ñu waree bëri dinañ bëri xale la may xale mais jamono ji ñu tool nii samay tànk da ko jéggi lu bari te kenn du ma woo di ma wax waxu mbay guy gi pour lan promoteur war maa woo war a waxoo ma waxu Moussa Ndoye waxoo ma waxu Modou Anta waxoo ma waxu keneen di ma wax waxu mbay guy gi pour lan wonu ma sax promoteur yi ñàkk fayda boobu. kon sa xel ci Moussa noo man Moussa maak moom léegi mu taxaw ñu ngi koy dox nañ ñaan yàlla mu sotti bu sottee ma bëreeg moom daan ko dem bëreeg ñi ma war a bëreel. mais dama gis bi nga bëree ba noppi keroog danga jug laaj ki nga xamante ni mooy Zos. sa combat ak Zos bi nga ko laajee est-ce que promoteur woo na la wax ci wala boog waxaat na nañ lu ci jëm. non Zos mosuma koo laaj wax dëgg fa yàlla mosuma taxaw ni nañ ma jox Zos. am na ku ma woo ni ma ndax bëgg nga bëreeg Zos ma ne ko bëgg naa bëreeg moom ndax ku bëreeg guy gi bëreeg Ama Balde bëreeg Boy Niang kooku man rêvé pour bëreeg moom ndax palmarès baa tax mais taxaw ma fenn ni nañ ma jox Zos man ba ma bëree ba pare damaa xool xale yi fi ëpp doole ñi ñuy wax naan dañoo am kàttan ma ni ñoom laa bëgg a ñu wax ma ni leen Sa laa bëgg a bëreel rëg-rëg Moussa Ndoye Modou Anta ak guy gi ñooñu laa site ni ñoom laa war a bëreel te dama war a bëreeg ñoom mais Mbagnick Kaïré foo ko kii euh, Mbagnick la. Diène Kaïré Diène Kaïré Diène foo ko bàyyi. non Diène moom ñemewu ma man ay waxam dootuma ci xuus jën moom amateur yi sax xam nañ ni Diène ñemewul soq. ndax soq nag soq nag bëre moom mun a weesu bëre fan nga teg ni Diène ñemewu la. non Diène ñemewu ma parce que li tax Diène ñemewu ma Diène moo ma gën a baax palmarès ci làmb. Diène maa ko ëpp ay victoire Diène man ñi ma bëreel ci làmb Diène bërewul ak ñoom. tey bu ñu taxawee di ko wax soq mu naan soq na liggéeyaat day nax boppam lu may liggéeyaat yow ku la ëpp victoire bu xale yi mu bëreel ci làmb bëreewoog ñoom bëreeg sama génération daan ñëpp man ñeenti mbër ma daan laay Pythagore ma daan ram daan doomu dàngu musique ñoo ma daan ci làmb ay champion ma daan ma daan ay champion man musuma bëreeg mbër mu naan soq day làmbaatu wala daa bëgg yoon man mbër yi ma mës a sama carrière yëpp dama leen fekk ñu nekk seen digg ndaw ma bëreek ñoom daan leen ndigal bi ma koy daan neuf victoire la tegale kenn mënu koo daan. daan ko ma jël ko sama premier grand combat daan ko ak manière. Rambo bi ma koy jël huit victoire la tegale kenn mënu koo daan ma jël ko daan ko. Stade Demba Diop la woon combat boobu. Demba Diop Pape Mbaye mi jommaloon ñëpp dama ko jël bëreek moom quatre-vingt-dix minutes yàlla dogal ma am ndam ci kawam. comprendre nga mobile bu Grand Yoff tey ku gënul pare ci làmb gënoo koo pare. dama bëreeg moom laa ma jooju signature contrat bi rek lu ne. Youssou Ndour bu lépp gi bi may bëreeg moom Arena la génn. ñëpp bàyyi ko fi ma jël ko daan ko man mbër mi fi ma sa bàyyi rek jël naa la daan la. Boursine bu lébu gi Boursine bu Bawal. bi ma koy jël barki alxuraani karim huit victoire la tegale ñëpp da leen dóor ñu daanu. bi ma koy jël sama staff sax man dañoo bañ ma ne leen dama koy jël. jaar fu metti ci làmb coow lee bari rek ñii di wax di ndellu di rëy làmmiñ suñu génnee seen palmarès teg ma génnee xale yi ma bëreel ci làmb teg. barki maam Seera Fall waruma sax bëreek ñoom mais dama dugg ci kalaaf mu am nu mu demee ma replier waat bëreeg ñi ma war a bëreel tegaat ci course bi kon tey ñoom buñ ñëwul lu ñu bëreek man damay jàpp ni dañ maa ñemewul du ma fi nekk nag di wax ak koo xam ne ñemewu ma comprendre nga ba ci marle barki Demba Ndiaye maa ngi koy déglu bañ waxee ba tudd ma dañu noo soq soxlawu ma soq pour bëreek moom pour lan. maar dafa bëgg wax dala xeeb. ni moom Moussa Ndoye la soxla wala kii mais soq moom soxlawu ma ko. mais gisoo ni gisoo ni yow Marley Diène Kairé peut-être Moussa Ndoye wala Modou Anta yéen ñeent bu ñu leen dugaloon kalaaf nga loolu yaakaar loolu du neex parce que dégg naa foog naa ci yow bëy ne ñoo la doon bëgg a dugal ci kalaaf xaw ma nag. non man nekkuma fi sax di wax kalaaf boobu ni ngeen koy déggee nii noonu laa koy déggee dégg naa mbay guy gi keroog muy wax ci télé bi démb xaw ma barki démb naan ñu ngi dox benn kalaaf boo xam ne soq moomu mu ngi ci ak Franc ak. ak ak ay jam ceeri man lu may dox di bëreeg ay jam ceeri ay mbay guy gi du ñooñu du man ak ñoom ay champion lañ def nañ ci làmb lu ma ci deful mais man ñooñu taxuñ sax may nekk fii di rey sama bopp di entraîner man dama war a bëreeg champion yi il faut gars ñu xam loolu man xale laa te mbaru amateur yi la amateur yi ñoo mu bëggal seen bopp forcé ma sama bopp amateur yi man damay ñëw ci làmb wane li amateur yi bëgg jël dem sama yoon man boo may daan sax si jom nga may daan bi lamb yi ma gën a ñàkk làmb yooyu laa gën a téye ci sama loxo kon tey man nekkuma fi di wax ci yenn affaire yi buñ ma ñemewul nañ puus dem xooli ñi ñu bëgg a bëreel ñu bëreek ñoom man soq lamb jafewu ma promoteur yëpp bëgg sama combat amul promoteur bu bëggul tëgg sook ndax boo ma tëggee doo ko rëccu lu bis bi laaj dama koy def te du ma bëre làmb ju géey loolu yàlla defal na ma ko musuma bëri ci sama carrière lamb bu géey Iba Mar bu ma fay bëree midi damay tëj stade bi arène national keroog ni ma ko def amul sama benn morom ci sama génération bu ko def noonu. keroog de waa Pikine fees nañ fa bu du te AS Pikine da doon jouer sax moo tax mu demee noonu AS Pikine da doon jouer match final keroog stade bi mel noonu ba AS Pikine jouer woon nu muy mel man doomu Pikine laa. booy gënuñu ma parcours gënuñu ma ñeme lu metti coow lee bari rek mais parfois xam nga nit moom xam nga di nga doxee ak taalibe ba xam nga ku jóg xam nga am nu mu doxee wala ku jug am nu mu waxee non duñ ma ñeme de. ñoom <laughs> non non duñ ma ñeme mukk. sox nag man baatu ragal bi ngay wax nii man xaw na ma jaaxal. non non duñ ma ñeme parce que yow koo gënul palmarès mu gën la palmarès ñaari yoon buñ tegee ay victoire moo la ëppale ay victoire buñ tegee seeni combat moo la ëpp ay combat. léegi léegi su ma ñëwee sa diggante ak Moussa moom doox dalaa ragal moom. non Moussa Ndoye moom ci boppam seetaan nga interview boobu. Fadel moo ñu jël kër Aziz Ndiaye ak Badou xaw ma non jotuma ko seetaan dama ko xaw a seen comprendre nga ñu toog mu ne leen carrément sama kàddu laa am soq bu ko neexee bu mu jël benn mbër man moom laay bëreel te promoteur yee ngi si ñu ngi toog di déglu di xaar. sa diggante ak Moussa Ndoye Moussa Ndoye nekk xeexkat teg la ñaari defet Garga Mbossé daan ko euh, Sa Thiès mi ngay wax ne moo nekk sa xel daan ko mën a jëm si yow est ce que nekku dafa bëgg fu mu fu mu relancer waatee. non non soq du xale bu kenn di relancer woo ci moom. Moussa Ndoye champion la te ñi ko daan ay champion lañ daan ko taxul terew koo nekk champion de ñi ko daan ay ndaan dama gis dama gis am na xale yu ko fi dëkk mu bañ a ñoom nangu bëre ak yow moo tax ma ne est-ce nekkul dafa bëgg fu mu fu mu fu mu yéegaatee moo tax mu ne day na nga bañ a jël benn avant. non moom dafa xam ne buñ bëree rek day neex moom xam na ne buñ bëree day neex Moussa Ndoye bu jaar gauche rek soo ko jaar droite ñu duy stade bi mu fees mu ambiance ma ambiance ñu taxaw ci digg bi war a def jom loolu. mais mais Sokh Sokh Moussa Ndoye abi la sa diggante yow ak moom ku ne xam na ne Moussa Ndoye xeexkat la est-ce dina yomb ci soow man da ngaa gën Moussa gis xeexkat bu ma dellul ginnaaw. non bu mel ni Moussa Ndoye agressif laa wax. ñu ko dàq xeex bëri na ak ñoom. comme kan. Boursine bi mooy bëreeg moom Boursine ku ko dàq xeex ci laam. mais mais méthode xeex yi ñoo dul benn. non non Moussa sax du xeexkat Moussa Ndoye bërekat la Moussa Ndoye bëri la nit ñi xam ci moom Moussa Ndoye benn nit. mais boo xoolee combat mook Lac Rose xool combat mook Tonnerre yëpp dafa samp jaaga taxaw. lagros xeex xeex bu tax ñu naan xeex amu fa. dañoo bagaar ñoom ñaar sàndante ay coup rek ba génn saako yi te boobu lagros parewul lagros Rose abandonné ñu jox ko victoire. yow ku ku sitaan say combat xam ne euh, Sokh dafa bëgg a jàpp ba mu dëgër def épreuve épreuve de force. non man moom làmb lu mu laaj dama koy def. làmb moom jamono ji ñu tool nii surtout ment jamono ji ñu tool ne li tax ñuy wiir wiiree xam nañ ko man nekkuma fi nag di forcer kenn ndax koo xam ne yaa ko gën palmarès du ma fi nekk di wax ci moom wala may sonn de man ah, promoteur yëpp ngi dox sama komba amul promoteur bu doxul sama combat nekkuma mbër mu combat jafe comprendre nga dañuy ñëw ñu bëre ma bëre ak ñoom bëriwuñu may entraîner rek di xaar ndax man doole ji gënee bàyyi moom xam naa day métti Serigne Saliou xam na ne jamono ji ñu tool nii fulla ak fayda joojoo ma bàyyi ci làmb nekkatuma ci di maslaa ak kenn li liñ gis ba tax ñuy daw lu ko gën a pire moo fi nekk te dama koy gën a yokk barke Serigne Saliou. bu gën a yokk doo am jar na ko moo gën may bàyyeeku ku may gis di ma yapp wala nga may ñeme buñ ma yabee rek micro yi lañ leen dékk ñuy wax mais soq buñ tëj ak yow barrière yi ci digg géew bu dara desul lu dul ngeen rayante di nga xam ndax yaa ko mën wala mënoo ko làmb kenn mënul kenn. dama gis léegi beneen soq parce que sa combat yaa gàmmu dama gis keroog nga génne sa wax mu leer na ma ne Sokh am na feneen fu mu tegoon làmb teg na ko fu ëpp foofu lan la danga gis ne Sokh dafa yegg fenn ci làmb wala dafa war a làmb Sokh ci boppam. non dafa am dafa am ñàkk fayda boo xam ne man maa ko doon wane ci làmb ba tax booy ku jóg ni Sokh maam yu bëri yoo xam ni dama ko jëloon teg ko nële parce que tey yàlla bu la buggee dimbali day am fu mu la jaarale man chaque jour dama koy wax dama ne kalaaf bi man su ma ko jëloon. mun naa bañ a nekk champion ci làmb. mais foofu est-ce que naagoo fa ca topp la ba tax na euh, nga nga xaw a demee góos parce que ñëpp dañ ne woon soq lañ jiital sa ñëw na dayoo baa ngi fa bu sumee ko tuus ma lépp dañoo jëloon faveur bi yëpp jox la est-ce que loolu taxoon nga naagu foofu. waaw looloo tax ma ne la man kalaaf bi su ma ko jëloon yàlla mun na ma bañ a def champion ci làmb parce que jamono jooju segam yeggaguma rek ma yaakaar ni yegg naa kon jamono jooju su fekkoon ma jël kalaaf bi mun naa bañ nekk champion ci làmb ndax jamono jooju noonu. maa ngi woon doon def lu ma saf di dem fu ma neex maam aw ma woon arrêté maa ngi doon bëre di daan dama yaakaaroon ni loolu moom mooy yoon bi parce que maa ngi koy def te maa ngi bëre di daan mais tey ba ma demee ba am fu ma ci jaar toog ay guddi yoo xam ne ma toog man seul mel nit musumaa xam ma dund ko nag ay weer pendant un ma toog man kese man mi daan tëdd ba dama daan tëdd sama néeg barki Serigne Saliou Mbacke booy dañuy tëdd bay tëdd ci buntu néeg bi ma bëre ci kalaaf bi daanu daanuwaat barke Serigne Saliou Mbacke man dong maay tëdd suba ba guddi jot. bu weesoo sama soxna bi nga xam ne moom la ma yàlla booleel gisuma ma sàmba gisuma ma demba samay booy yi ma doon àndal guddi ak bëccëg nga xam ne maa leen gënal sax seen bakkan ñoom rek laa oon gis te dama daan gis nit fu ne fu ne la nit daan jóge di ñëw di pour gis sook pour vérifier sook pour découvrir soq ma def ñëpp ni sama bopp tey bi ma yàlla jaaralee foofu noonu dama ci gis lu bari ma am ci jàngat nag mais taxul ma beddi kenn taxul ma woon kenn leneen parce que yàlla noppi na te àdduna moo tëddee noonu sant pour cent yàlla may ko kenn ku ñëpp bëgg yàlla may ko kenn boo nekkee ci say série de victoire nag façon bu nekk di nga ko gis ndax yàlla moo bindee noonu àdduna mais man damaa jàpp ni ñëpp mu bëgg aw ma noonu te képp ku ma gisul rek damay jàpp ni yitte yi nga nekk moo gën a pire mais man soo ko jamono ji ñu tool nii xam naa fi may teg sama tànk yu bari kenn déggatuma ci yu bari kenn woowu ma yedd ma kenn tooguma ci ruq di ma wax ni ma lii nga war a def wala lële maa toog xam ni tey bu ma buggee nekk champion yii dama koy jël teg ko fële ma jël ko teg ko fële continuer sama yoon. Yékini de am na benn benn wax bu mu daan wax nee na mbër saa bu bëggee nekk mbër lépp lu koy def mbër moo koy def waaye saa bu demee ba nekk mbër lépp lu koy yàqal moom mbër mi moo koy def. waaw man nag li ma doon yàqal man mbër mi man maa ko doon def kenn mësumaa def dara njortu ma ni sax nit mës na maa def lu bon. njortuma ni nit mus na maa soxoree dara ba tax may wuti ko ñàkk ko man damaa jàpp ni maa amoon lu ma doon def jékki-jékki commencé tegg sama tànk commencé perte la ma amoon ba ma demee ba xamal ko sama bopp maa làqatuwaat sama ruq itam yeddaat sama bopp xam ne man léegi nekkatuma xale bu ndaw toogaat ci sama ruq xool yoon bi ma war a jaar di fa jaar léegi amul ku la naan gis naa soq fii sama gaale bu ma nekkul sama gaale maa ngi ci kafe gi ci gaa yi aw ma fenn soxla aw ma fenn fu may dem lu ma guddee guddee tëdd sama biir kër la may fekk amul ku la naan soq romb na ma fii guddi. kon daal su ma déggee wax ji daal en résumé mooy soq daa jël làmb teg ci bakkanam bi te xam ne euh, soq dafa lekk daal ci làmb. waaw parce que moo may fay bu ma demee ba calculer ni man tey aw ma métier xëyuma gontuma làmb mooy sama métier su ma si fu fulla ak fayda suba dañ may yoral sama njaboot te ñaanuma yàlla ñu yoral ma sama njaboot ci kaw suuf dama laqatuwaat sama ruq xam ne tey man lii ma nekk nii kattan moo ma ciy génnee ma laqatuwaat sama ruq conserver sama bopp toog jàpp sama ñàmbur pour réaliser sama bopp dara pour sama njaboot suba ñu xam ne lii sama papa ko rayante ñaanu e ñaanuma yàlla toroxal suma njaboot te boo buggul toroxal sa njaboot ci li nga nekk da nga ciy teg sa bakkan. mais keroog dimanche dañ la gis nga ñoo ñëw stade bàkku neexal tuuti génnaat dem lan moo andi woon stade. waaw mais parce que làmb rek maag Moussa Ndoye dañoo joxante woon rendez-vous foofu noonu pour ñu ñëw xam nga. yow moom yéen a fa joxoon rendez-vous le promoteur bi la fa jox rendez-vous. promoteur bi jox nañu fa rendez-vous maag moom joxante nañ fa rendez-vous parce que promoteur mënuñu faa jox rendez-vous te neexuñu parce que ki joxagul avance mënu laa conditionné loolu moom la neexoon neex ma ñu waroon fa daje maag moom ñëwul ma ñëw. bàkku comme mbëru amateur yi laa te amateur yi yooyu dañ koy bëgg tey ñu namm la gëj la gis nga ñëw bàkku wane sa bopp loolu dong la nga ñëw mbëri topp la mbay gu gi simeeku euh, buusi ndaw dongali nii mbëri wàcc. ñoom ñëpp ay champion lañ parce que champion buggee nekk champion day daan champion tey bu ma wanewul dara ci làmb wala ma doon yaafus su ma ñëwee di bàkku kenn du ma faale mais loolu sant yàlla laa ko def parce que man kon loolu daf ma gën a yokkaat courage sax ma war a gën a góor góorgóorlu parce que tey bu ma demee ba bokk ak ñoom génération bëreek ñoom ñenn ñi mu bëreeg ñoom ñenn ñi bëreeguma ak ñoom ñu bëgg a bërewaat man tey am na ñàkk fayda boo xam ne wala yaafus boo xam ne su ma ko wane woon ma ñëwee di bàkku dañuy xaar ba champion yi wàcc ñu wàcc tëkku leen ba ñu ma ku ma tëkku ndax man ni ñu bëggee bëreeg man noonu laa bëgg a bëreeg champion yi si kanam ku nekk rek am na ki nekk sa xol nga viser ko pour bëreeg moom waaw ñoom ay champion lañ yàlla na leen suñu borom defal jàmm defal leen tawféex liñ bëgg ci làmb yàlla defal leen ko ci barki yonent bi euh, samedi bii passé ñu seetaan ki nga xamante ni mooy Bombardier mu doon defi MMA gàddu woon drapeau Sénégal mais bi muy dem ñu ci ba ñaanal nañ ko ñi yéene nañ ko mais mu dem bëre yàlla dogal mu perte mais bi mu pertee ñu ci bay manière bi mu pertee combat bi gaaw bi mu gaaw ku ci nekk commencé nga di ŋàññi naka nga gisee combat. waaw man ni ma ko gisee mooy nit ñi nañ delloo seen xel ko quoi xam ni nit du nekk place yu yàlla suñu borom parce que place yu yàlla suñu borom moom boo fu bëggee nekk da ngay sonn Bombardier loolu la yàlla namoon ci combat boobu. ndax bëri na fi ay combat c'est pas la première fois mu bëri MMA non yàlla suñu borom di ko suturaal musul ñàkk ndam comprendre nga tey bu ko ñàkkee noonu man pour man li waroon nit ñi mooy dañ ko war a encourager gën ko doolelaat xam nga moom Bombardier ci boppam champion la bëri na combat bu nekk kon nekkul combat yëpp la mën a gagné ci carrière am nga yor na fi roi des arènes ñu fokkati ko ci loxoom loolu dara gënu koo metti mu dikkaat jëlaat ko comprendre nga bëri naag ñaata yoon roi des arènes comprendre nga kon tey bu demee bëri ji MMA doon doomu Sénégal mu ñàkkee noonu du coobareem ndax tey kenn ñaanul yàlla dem di wuti ñu kaaw la genre kaaw boobu kon nit ñi li leen waroon mooy dañ ko war a encourager gën ko ñaaxaat indiwaat ko xamal ko ni ko tey leen gën a fier ci yow parce que drapeau dëkk bi la doon représenté te c'est pas la première fois mu génn di ko représenté waaw man Sokh maa ngi lay ñaanal li des ci sa carrière ci MMA boobu yàlla boo ci amati defet yàlla na la suñu borom di defal ay ndam yu kawe kawe kawe kawe te maa ngi lay encouragé di la ñaanal lii yàlla na mujj ci sa carrière ci barki yonent bi. mais bi loolu jàllee dama gis ñenn ñi ñu ne mbëri euh, MMA boobu ñu dem di def defi lamb làmb Sénégal 2 pour cent la ci MMA. yeneen mbër yi nga xamante ni dañoo jóg pour dem defi ko ñenn ñi amuñu garde ñenn ñi seen bëre sax doyul ba ka dem gis nañ ki nga xamante ni mooy Ama Balde ñoo ngi koy nuyu de passage dem na signé foofu est-ce que mbër ak MMA parce que ku ne gis na ni euh, tànk dafa am ku am concu am est-ce que mbër yaakaar nga ni mën nañ cee génn mbër yi nekk Sénégal bëgg dem def foofu MMA. mais pourquoi pas parce que tey ni nga ñëwee gëm ni tey làmb ji nii tey sama morom laay jëflanteel te waru ko yóbbu tey boo daje woon ak sa morom fii ci mbedd mi mu saaga la ndey bugg la humilier ci mbedd mi da nga koy jaay sa bakkan. moo xam da lay duma moo xam da nga koy duma mais dala danga koy jaay sa bakkan mais tey ñun lii ñu nekk nii mooy suñu métier gars yi li ñu leen ciy fay mun nañ ci suturlu ak seen njaboot te xam nañ ni mun nañ ci teg seen bakkan génn ci te affaire góor yàlla la comprendre nga moment ñi koy def ay nit lañ comme ñun. mën na ci mais ñi ci ñoom xanaa ñoom seen bakkan baaxul. gars nañ bàyyi loolu ñi si nekk xanaa ñoom yoruñu bakkan comme ñi koy def affaire góor yàlla la nañ bàyyi loolu tey bu ñu dóor bombardier mu daanu rek wala ñu kaaw ko rek ñu bugg fa jaaral di cité ay mbër yi si nekk naan dinañ ci ray mbër ak lu nekk nga koy dégg Siteu defu ko fi ñaata ndam la jam am. rëg-rëg ñaata combat la ci tegle yàlla di ko ci suturaal muy am ay ndam benn la si ñàkk. comprendre nga dañ leen war a encourager gën leen a dolli fit gën leen a yokk jom xam ni tey ñoom li ñu nekk noonu liñ ciy gagné ñu ngi ciy dimbali seen i parents tey ñu toogee demu ñu defi ko làmb ji taxaw mënuñoo bëre làmb gi nii kenn mënut a bëre ñaata champion ñoo fi nekk yoo xam ne heure bi daan na fekk ñu bëre bay wutaat combat pour bërewaat mënuñoo bëre nga gis un moment be ñu la ciy fay ay centaine de millions parce que làmb da ngay dem di fanaan ci ay àll fu nekk nga dugg fa foo xalaat dañ buñ la fayoon cent millions di nga gis yenn keneen ku ci teg yeneen cent million pour nga am ndam kon li mbëri di wax naan lañ ma fayoon def naa ci ko ëpp loolu dafay am mais loolu ñun ñii di mbër yu ndaw sax ñun li ñuy dépense suñu ay combat la ko waxee doo ko gëm parce que Serigne Saliou li ñuy dépensé suñu ay combat ñun mbër yu ndaw yi buñ la ko waxee da nga naan du dëgg fayuñ ñu kase boobu fayuñ ñu xaaj xaajaat bi mais dañoo am ay jàmbaar yu nekk suñu ginnaaw yoo xam ne tey ñu ngi ñuy jàppale di sonn si ñun tey bu dul woon ñooñu tey ñun suñuy làmb day metti parce que ndam lu ko waaye jëndee jar na ko boo ci defoon ay milliards ndam bi nga bëgg boo ko amee lépp wàcc la. lan ngay wax ñi nga xamante ni ñoo lay seetaan ak say supporters kàddu yu mujj lan lay doon. non man li may wax mooy mbëru amateur yi laa waruma toog ba heure bii awma ma mbër yi nañ ñëw ñu bëri te xam ne lii nii ñu nekk nii du affaire star du affaire da ngay toog sa koñ naan diw nii diw nii toog sa koñ di wax taxul nga mën soq toog sa biir gaale di wax taxul nga gën a nekk soq champion nañ bàyyi caaxaan bi ñu ñëw ñu bëri man nekkuma fi di ñëwaat ci li ma def ci làmb amul sens parce que li ma war a def ci sama kanam moo ëpp sens fuuf li weesu sama ginnaaw li weesu sama ginnaaw ay combat la woon rek ma war ko bëre ñun li ñu ñor ci làmb du ay succès du ay maa def lii du ay tegale say tànk di màcc tuñ ñun dañ cee bëgg nekk nekk champion dañ cee bëgg nekk ay ndaanaan yu mag yoo xam ne foo foo ñu tuddee ci làmb ñu nangu yéegi ni niñ koy tuddee ñëpp nangul ko palmarèsam ñun palmarès bu raw boobu sax lañ ciy ñaan yàllaa def te li ñu koy may nekkul ñu toog suñu kër tegale suñu tànk yaakaar ne ñoo mën ñëpp làmb kenn mënul kenn kenn mënul kenn billaahi mbër mujj jël sa avance jaar gauche nga jaar droite jàppal ni ba keroog ngeen di mujj ci géew mun na laa daan waaw mais gars yi dañuy toog seen biir gaale yaakaar ne dangay ngay dégg kuy analyser sax naan diwoo mun diw bu ko jàppee du doy loolu amatul ci làmb de léegi làmb ku jël combat sa bakkan nga ciy teg amatul lu yomb comprendre nga nañ ñëw ñu bëre di profité na xam nga di ñaanal kenn koo xam ne taalibi suring Touba la muy Cheikh Amar na ko Sénégal yëpp ñaanal suñu borom defal ko jàmm ndax am na su am na njëriñ ci réew mi Cheikh amaar def na lu ne ci réew mi ndimbal boo xalaat ci àdduna Cheikh Amar def na ko jamono ji da nga ko déggati fenn parce que dafa nekk ci ay tolof tolof def accident bu metti te ba tey déggoo ko ci wax déggoo ko ci seex déggoo ko ci yàbbi comprendre nga doomu aadama dafa gaaw a suul jëf te Cheikh Amar barki Seydina Mouhamed man sook maa ngi sàkku képp kuy jullit di noddu baatu laa ilaha illallah ñaanalal Cheikh Amar yàlla suñu borom defal ko tawféex parce que toolu Serigne Saliou yee ca Xelkom billaay am na fa njëriñ te ku liggéeyal Serigne Touba la jàmbaaru Serigne Touba la yàlla na ko suñu borom defal jàmm ak wér ak tawféex ci doole Serigne Touba maa ngi ñaanalaat ñëpp jàmm di wax ne nag palace bii nga ma fekk nii suma jantal brode moo fi nekk waaw muy maale wan comprendre nga yëre yi ngay gis may sol di ñëw làmb yëpp moo ma koy solal xam nga di jàmbaar di jàppale mbëru Pikine yëpp nag comprendre nga màlle wan xam nga nga nekk fii ci tali bees koñu Afia ci fuuru Afia bi rek boo ñëwee bu foofu fa nga koy fekk keroog li ma sol dimanche moom moo ma ko solal ci kaw bu suuf yëre yi ngay gis yi may ñëw làmb yëpp moom moo ma koy solal émission yi ngay gis may def yëp moo ñëwee fii nii moo may tànnal lu ma bëgg mu jox ma ma sol dem comprendre nga muy gentleman xam nga di suñu waay yàgg di ci jàpp nag ci manière yëp dañuy am combat sax billaay muy débloqué ay moyen am xam nga di ci def xam ma weesu weesu na sax ak ñun ay yéreeg ay dàll ak affaire yooyu noonu te jàmbaar la quoi suñu moroom la jeune la comprendre nga yàlla na ko suñu borom defal jàmm place bi doon ay place yi xam nga yàlla ibbi xéewal yëpp yéen tamit xam nga ñu ngi leen di ñaanal tawféex bu baax xam nga parce que lii tamit xam nga yombul quoi te liggéey bi ñun ñëpp ñoo ko bokk comprendre nga ñun ñëpp ay ndaw lañ rek dañuy daw di dàq rek tey nii ngeen di def taal seen essence dugg ci dëkk bi fu nekk ngeen dugg fa pour jël xam nga champion yi xam nga na leen ko gaay du yombalal tamit xam nga di leen ñaanal tamit tawfeex xam nga affaire yi gën a yaatu gën a yokk ci doole Serigne Touba maa ngi ñaanal ñëpp jàmm ci daraja yonent bi. gis ngeen noonu lañ koy defee ci jàmmaarloo tey ñu seet si woon Sokh di ko wax ne nag àdduna moom noonu la ñuy ñu ñu bokk teen nag ñooy laxasooy goj ndax lii yàggoon nañ ko bëgg waaye tey la ko yàlla doo ko sottal maa ngi gërëm ki nga xamante ni mooy ndeyre ma moom su ma waxee rek moom dina comprendre di nuyu ñëpp ñoo xamante ni ñoo ngi suivre Wassare Lamb di nuyu ki nga xamante mooy Pape mais jàmm gën si kàmbaaw maa ngi koy wax ne ko ñoo ngi gis liggéey bi na gën a góorgóorlu suñ bas maa ngi lay gërëm bu baax a baax di leen jox dig daje beneen yoon ci jàmmaarloo ci Wassare Lamb jërë ngeen jëf